Ce qui est bizarre maintenant au Sénégal, mhm. c'est que des journalistes transgressent les règles, ils sont portés en, en, en, en triomphe, et les journalistes qui décident de rester, de respecter les règles, ñooñu la ñuy saaga. Ah. Moi, j'ai vu des gens m'insulter. Est-ce que Maïmouna Ndour Faye a signé la pétition? Je ne signerai pas une pétition parce que c'était une bêtise. Moi, je suis journaliste. Mhm. Voilà votre réponse. Maintenant, mhm. Yakham, euh, yéen nag fan yi bari ngeen benke ñenke ak ak ak les les questions de liberté de la presse. coupé ngeen fi signalu Walf mhm. bon y a eu yu ñu fi jàpp ñu bari libéré nañ leen euh, et puis euh, ma ma ya ya ya ya Mati bokk ci yoo xam ne jàpp nañ leen euh, war na peut-être bénéficier wu des mêmes conditions Mati Sarnia ci manifestation yi lañ ko jàppoon lu mu def ne da doon da doon da doon yokk xar mi karaw bu ñu demee ba bàyyi ñeneen ñi ñu jàppoon ñëpp tamit war na cee bénéficier wu on l'a oublié peut-être parce qu'elle ne pas connue euh, et hmm. donc euh, baax na ñu ñu ñu son son son cas hmm. mais yéen a ngi fan yi tamit di jàmmaarloo ak la presse étrangère notamment euh, France quatre sur la façon bi muy traiter actualité hmm. alors ñun ñoo am problème wala yéen yéen a am problème avec la la la la la la la liberté de presse la ministre de la communication est même allé jusqu'à menacer de couper le le le signal de de de France 24. may dama bëgg wax benn affaire nañ ci d'accord journalistes yi ñuy lim dañu leen teg loxo ak ñu tegoon loxo génne leen kenn si ñoom jàppuñu ko dans l'exercice de sa profession mënoon nekk journaliste nekk ci ay lijjanti visa ñu jàpp la. ban ban ban journaliste moo nekkoon ci di jël ci visa non dama jàpp ñu bari ci te ah, ba ñuy def seen liggéey lañ leen jàppee. non non bàyyi ma yeggale may da ma pose dama ne la dama war dans un cadre général fii journaliste teg nañ ko loxo yàggul du woon métier du woon len dañ ko jàpp loxo pour ay mbuxum ay journaliste ñoo di solidarité Pourquoi solidarité mais je non attends les journalistes les journalistes sont au-dessus de la loi. les journalistes pas de ça. Je parle sont pas des de ça, ma joxe exemple journalistes ce des êtres euh, à part ou quelque chose comme ça mais pourquoi mais maintenant journaliste da nga violer loi c'est-à-dire neewoo Macky Sall dafa ñuul ñaaw neexuma ñu jàpp la non da nga violer loi mais dama la jox exemple euh, euh, nu mu tuddati may mun a yow soo yoree sa télé ak sa rajo di wax lu mën a taal dëkk di wax lu mën a indi ñaari dëkk mbëkkante tàkk lan loolu liberté d'expression. la presse dafa induire un, un comportement responsable waaye tamit euh, euh, des des des des systématique des délits de de presse lu ne nii rek ñu jël ne. dama ni la il faut qu'on euh, arrête de. yow yow yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, fair adopter le le le code de la de la presse. rédacteur bind dem défendre as nañu dépénaliser il y a d'autres mécanismes pour rappeler les journalistes à l'ordre j'ai toujours été contre. la dépénalisation oui j'ai toujours été contre et je l'ai dit ñëpp mën nañ ko seede. ca bañ ko njëkkee commencé wax ci jamonoy Wade. Guirassy était ministre de la communication on ne peut pas faire deux catégories de citoyens Maïmouna Ndour Faye Yakham mbay c'est des journalistes mën nañu wax loo xam ne parce que su pénaliser su peine amul si l'affaire n'est pas pénale on ne parle pas de dépénalisation lan mooy dépé lan mooy dépénalisation des délits de presse. c'est éviter la judiciarisation systématique non est-ce que dégg na non bàyyi ma wax la est-ce que dégg nañ baax ñun li ñuy wax. est-ce que ñun ñu yàpp sénégalais yi wala dara taxaw di wax délit nangam nañ ko dépénaliser parce que délit bi ki ko def journaliste la mais plus grave. te ñu bëgg toog ay Sénégal di wax ay deux types de citoyens ou trois types. di wax ki géer la ki géwél la ki tëgg la. par exemple non mais. tout ça ñuy jàpp ay journalistes ci ay diffusion de fausses nouvelles non waxuma lool Maïmouna sur quelle base la ñu mën a wax sax toog di wax ay dépénalisation des délits de presse c'est-à-dire dépénalisation des délits c'est-à-dire nit ñi bi ñun ñëpp ay doomu aadama lañu voilà délits yi ñuy. identifié dem assemblée nationale vote ko muy loi ñu ne sàcc ganaar délit la sàcc saaku ceeb délit yaa ngi may dégg saaga sa dëkkandoo délit la ah may mun a xoolal sosal ah sa dëkkandoo délit la je donne un exemple may mun a may mun a attendez c'est-à-dire Fatou Diop su taxawee Kumba Jóob ni ko da ngay njaaloo sa jëkkër dafa tukki ngay njaaloo ñoom ñaan ñuy citoyen ordinaire du ñu journaliste kooku suñ ko plainte su demee tribunal tànki du laal suuf léegi faatu jóob nekk journaliste kese ni Kumba Diop da ngay njaaloo dama lay jox exemple dama lay jox ay suñ ko bindee délit de presse c'est pas de la presse Eh, eh, xoolal eh, may ñun yàgg nañu xoolal gis nga man yàgg nañu ci métier bi quand soo toogee presque làq ci métier loo xam ne aujourd'hui moo ëpp sa xaafu at sa xa soo sa dund li nga dund soo ko xaajee li nga def ci presse bi moo ci ëpp xamante nañ suñu biir on ne doit pas défendre les journalistes qui dans l'exercice de cette profession de ce métier ternissent l'image des journalistes